mbokk yi di dellu di rafetlu ànd bi ci seen télévision bu Saloum canal 17 ci TNT bismilla ci xibaar yi mu bokk ci lu ci gën a fës rek daal di aar li nga xamante ne mooy alam bi waaye itam indi ab set te dimbali ndaw ñi ci ab xëy moom bi nga xamante ne mooy maire bu di Abdoulaye Seydou Sow daal dinay xaatim ab accord ci digganteem ak ñi nga xamante ne unité bu coordination bi wax jëm ci wàllum mbalit mi di UCG daañu ci dikk ci biir xibaar Paris leneen lu jur tiis ak njàqare fi ci réew ma sunu gaal bokk na ci jamono yi faat yu bari yi ñu nemeeku rawatina nakk ci ayu bés bi ñu génn ñett ci ay yoo xamante ne gis nañu ko ab psychologue la doon nag mu nga cay jéem andi li nga xamante ne mooy gis-gisam ci bile mbir leneen ñu dem seeti leen ñuy defarkati ventilateur wala sax jaaykat ci jamono ya tàngaay bi xool nu seen jaay daal di tëddi ay da camara la ñu ci àndal mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës yaatal bàkk bi Maradona doxee xibaar yi ak ab tënk jëmale ko ci mbiru Kiné Fall Gaye di soxna si nga xamante ne nag moom la ñu faatoon ci ab multi service foofee ca Pikine rue dix li nga xamante ne mooy ajuma ji ñu génn ca ba fukki waxtu jotee ci loole lii di police bu Sénégal daal di génne ab communiqué di kaat rek ci mbir yi ci moom koorub Kiné Fall ba ñu fekk ca multi service ba ñu daal di koy faat ca Pikine rue dix ak école 5 ci loolee lii di élément bu commissariat bu Pikine ñoom nag gannaaw ba ñu demee ñoom technique sax ak scientifique ngir rek jiitu ca bërëb def seeni saytu la ñu gis mooy lu baax yi ci ay paaka lañu ko jam loole tax mu mujjee ñàkk li nga xamante ne mooy bakkanam ci loolee ab enquête bi ñu daal di tijji tax na nag ba ñu daal di njortu ci ki nga xamante ne moom la bokkoon di liggéeyal foofee ci entreprise bu Mansour Sy ngir rek tegandi ko loxo moom moomee ñu yaakaar ne moo def bile ñaawteef ba ñu demee ca këram fekk nañ fa ay jumtukaay yoo xamante ne nag ci la defee jëya euh, junni mel police nationale ak ñi nga xamante ne ñooy jëwriñ bi ñu dénk wàll wi euh, di jébbal seen ab njaal ñi nga xamante ne ñooy famille wu Kiné Fall Gaye leneen ci xibaar wax nañu ko ci ndoxte li dem ba ca Ndoukoumane fekk ji fa li nga xamante ni mooy mairie ba ci ndigalu Abdoulaye Seydou Sow di ci jawrin bi ñu dénk wàllum urbanisme moom nag ngir seetal waaye itam aar bu baax li di alam gi dimbali ndaw ñi ci wàllum xëy daal dinay xaatima accord ci digganteem ak unité bu coordination bi yor wàllum mbalit mi di UCG ki di Xoyaan Diouf Samb àndoon na ci ak Cheikh Oumar Diallo laata ñu koy samp ci ñaari fan ci weeru avril atum 2019 njiitalu réew mi dafa mébétoon lool ngir ñu daal di taxaw temb fexe ba réewum senegal bépp daal di set wecc ci noonee le UCG mi nga xam ne eh, rôle du lenn lu dul dajale mbalit mi ba noppi daal di koy yóbbu daal xaatim ab kayit goo xam ne daf ci lëkkaloo ak ñii di mairie bu kafrin ngir rekk daal di mën a setal eh, diwaan boobu waaye itam ngir ñu am benn dëkkuwaay bu mucc ayib xam ngeen ni am nañ fi ay xale yuy liggéey dans le cadre du programme Xëyu Ndaw yi am nañ fi aussi système de nettoiement ak ay camions ay bennes ak yooyu mais convention bi dafay permettre moyens yi nga xam ni mairie bi moom la am ak moyens yi nga xam ni moom la UCG di indi ñu boole ko ngir ñu gën a am euh, efficacité daal ci liggéey bi ak xool aussi nu ñu mënee yaatal programme xëyu ndaw yi pour yokk emploi yi ak yu suñuy xool ci euh, département de Kaffrine bi euh, dépassé nañu pratiquement 300 jeunes yoo xam ne jël nañ leen ci programme boobu te suñu objectif mooy ñu yokk ko ndax loolu le président de la république tegtaloon ci fan yi ci ginnaaw ministre bi mu ma doon soññ naan ma am na commune yoo xam ne xëy na bëriwul habitant et amul ay infrastructure comme ay tali mais nañu góorgóorlu bu dé cinq ou dix emplois sax nañ ko créer fofu parce que yaakaar li nga xamni mo nek derrière le programme yu ndaw yi au-delà de l'aspect da fay créer aussi une économie lu ëpp ñaari junni ci ay ndaw nak ñu ngi liggéey ci li ni mel loolee nak dugg bu baax ci programme mu xëyu ndaw ñi nga xam ne nguur gi moo initié bu ñu teewloo président commission environnement bu mairie bu kafrine nee bi bile xaatim kat dafa dikk ngir daal di tëye ndaw diwaan ba ñi nga xam ne kat seen xel dafa nekkoon ci dugg ci gaal yi wala sax nekkoon ci jóge fee ca Kaffrine dem te Ndakaaru ngir wuti fëb liggéey. UCG bu njëkk ba Dakar lañ ko doon dégg Dakar lañ ko doon gis par les médias par la télé mais tey ñëpp reconnaître nañ donc sa présence au Sénégal te ñi ngi def liggéey bu am solo liggéey bu mucc ayib Kaffrine au temps da nga doon gis ay mbalit fu ne ay dépôt d'ordure mais tey nit ñi ku wax te yàlla tax. grâce à l'UCG et ses employés tey Kaffrine gisatoo donc ces dépôts d'ordures gisatoo benn mbalit ci dëkk bi dëkk bi fépp a set bu njëkk ba da doon gis fii ay jàngoro ay feebar mois donc je suis donc dans la dans la santé xam naa ci bu baax feebar yooyu amatu fi dégg nga kenn gisatu ko fi paludisme wàññeeku na fi donc grace à UCG kon donc tey partenariat bi commune de Kaffrine da koy rafetlu. tuuriñ ji ngànk wàllum dëkkuwaay yi wàllum cet gi moom moo nekk ki nga xam ne mooy meeru Kaffrine waaye loolu taxut benn yoon ne Kaffrine kat dina nekk particularité ci li nga xamante ne mooy gestion euh, bu mbalit bi bu ñu teewlu coordonnateur am ndax ci ay kàddoom nee njiitalu réew mi daf leen digal ñu yemale ñëpp euh, ci Sénégal. ndigal bi nga xamné aussi mom le ministre bi joxé moy ñu yaatal ko fépp daal moy li tubab di waxé territorialisation manam ñu yaatal liggéey bi dugg ci commune yëpp ba ku ci nekk dal mën ci am dara li nak du du du du ben ndax tambali won nañ ko ci Kaolack quelques mois ci ginnaaw signé won nañu ak mairie Kaolack Serigne Boub am nañu ay waxtaan ak mairie Saint-Louis euh, barka démb si maa ngi waxtaan ak président conseil départemental bu ñoro monsieur Ali Mané pour dëkk yu demee ni Paoskoto ak Médina Sabax lan lañ fa mën def li nga xam ne daal moom la ñu dénk mooy fépp foo xam ni sénégalais mu nga fa ñu jëm laa taxaw dina am nag ay jafe-jafe ndax suñu budget yi xëy na bu doon suñu sago mu gën a yokk mais lépp loo xam ne daal mën nañ ko ngir mën a gën a jege sénégalais yi pour indil leen ay solution ci mbalit mi duñ ci jug. naaw Kaolack tey nag mairie bu Kaffrine moo aye woon eh, ci partenariat boo xam ne daf ciy lëkkaloo ak waa UCG ngir ñu mën a setal diwaan ba waaye bu ñu teewloo coordonnateur bi di Mastam nee na du yem foofu diwaan yu ci mel ni Saint-Louis ak yeneen yi nekk ci senegal yëpp itam daañu fa dem xaatim fa li ni mel loolu lépp nag ngir Sénégal yëpp daal di set wecc bu ñu jugee ca Ndoukoumane dellu si fi ca Kaolack dem foofee ca Sing Sing di ab quartier boo xamante ne dafa xaw a soxi lii di dëkk bi université bu El Hadj Ibrahima Niass nekkee fa askan wi bokk na ca la ñuy joytu ñàkkuma courant gu doy ci mbedd yi lu ni mel sax tax ba yenn saay seen ab kaaraange moom day sutante loolu faatu Sène Djibi Diop violence doon li nga xam ne mu ngi wéy ba tey ci yenn quartier yi ñàkk kaaraange gi mu ngi tere nelaw askan wi ci noonee Sing Sing doon na quartier bi nga xam ni bariwul dëkkuwaay ñoom nag ñu ngi jàkkoonteeg ak ay agression yu bari saa su nekk askan wi dañ leen di sàcc surtout ñi nga xam ne ñooy étudiants yi nga xam ni ñoo nekk ci université ba lenn rek waralu ko lu dul lamp ya nga xam ne war naa tàkk te tàkkul ginnaaw ba ñu sukkandikoo si ñenn ñi. on constate a donc loolu nak euh, c'est lié à beaucoup de facteurs facteur bi si njëkk xëy na mooy euh, comme ni ngeen ko wax sànq suñu naataango bi doon wax ne problème d'insécurité am na ci maanaam manque d'éclairage amul amul leerul te Sing Sing boo xoolee dafa nekk euh, benn quartier boo xam ne c'est loin de la ville. insécurité moom am na fi jot nañ ci nemmeeku cas yu bari parce que daaw sax amaan na y a des y a l'agence de la police qui était là pour parce que dañ ci doon nemmeeku ay cas d'agression yoo xam ne en pleine journée d'habitude. Et yi chaque goudé. ñu sàcc seen téléphone chaque guddi ñu agressé leen fii. moo ne moom monsieur Diaw mu ngi daal di xamal ni agression yooyu dina tax ba ni étudiants yi nañu war a dalee dootuñu ko dalee ngir mën a jàng ca na mu waree. insécurité bi daf fi daf lor lu bari si yenn étudiants parce que boo xoolee en général étudiants yi ñu ngi logé si biir Sing Sing si biir te xam nga Sing Sing si biir amul éclairage et voilà comme loolu c'est un facteur am ñoo xam ne euh, il préfère d'aller à l'école étudier au niveau du campus pédagogique guddi. mais buñ fay dem comme fi dafa amul lampe tamit gis nga route bi yoon bi ni amul doo daan yi de gauche à droite do comprendre ñom des fois dañu mëna dem pour jangi té loolu tamit day causer problème bo xamné ne bu mag la ci sen seen sen seen éducation parce que stabilité mëno ko am tant que amo amoo maanaam conscience tranquille et puis la conscience tranquille ni ko mëna amé moy manam euh nga gis lo manam bo taxawee fu sori gis sa morom mu leer nga xamné boy dem école sax do am ben problème dans que voilà fii defal leen ak yooyu noonu. ñoom nag daal dinañu dellu di lancer appel kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ngir ñu mën leen a taxawu ci wàllum sécurité. il suffit aussi euh, les autorités tamit ñi nga xam ne ni ñoo dëkk si dëkk bi ñu jéem a xool naka la ñuy defee maanaam Sing benn ville boo xam ne wala benn quartier boo xam ne quartier bu bu am am am ci la bu leer la si maanaam si ay làmp maanaam comme lu demee ni ay programme panneaux solaires yi. ñu jéem a leeral fii xëy kaaraange yokku kaaraange étudiants yi nga xam ne ñoo fi def nañu nañu dimbale ci ci éclairage public loolu moom bu amee moom euh, yaakaar naa parce que bu lumière amee rek peut-être defkatu ñaawteef yi moom dinañ duñ duñ am fit wala balaa ñuy def dinañ hésité waat bu baax. atali Sing doon na quartier bi nga xam ni mi ngi nekk en construction ci noonee defkatu ñaawteef yi ñoom dañuy daal di ci yooyee barab ci bëccëg bi ci noonu askan a xippi seeni Fatou Sène Sarr des ak moom ba tey jëm ci wàllum ñàkk kaaraange du ñu toog benn fan boo xamante ne fii ci réew mu Sénégal ñu ngi dégg ay faat wala yenn ci ay ñawteef yoo xamante ne askan wi dañu koy jànkonteel ca ñoom ñooñee sax daal dinañu ci yéey yàb bi dañu leen di teewlu ba tey ci micro Fatou seen Sarr. li fi nekk léegi nag dafa xaw a doy war bopp sa bopp te bopp sa bopp nag ñu ngi ko jàngee ci nasaraan yi te wax dëgg yàlla. diiru liñ fi nekk ak mag ñi mag ñi aar nañ ñu ci loolu dëgg léegi nag nasaraan bi dafa ñu envahir ba nga xam ne ñun dundatuñ suñu dund bopp mais dund nasaraan bi moom la ñuy dund li nasaraan bi digal moom la ñuy dund na muy dundee moom noonu la ñuy bugg a dundee ñun te contexte yi du benn ñoom mën nañ ko ndax seen culture waaye ñun fii au niveau de l'Afrique wax digg yàlla mënuñu ko ndax bokkuñu culture gis nañ fi léegi eh, eh, ay façon rey yoo xam ne wax dëgg yàlla rey yu doy waar la kenn mësu ko fee xam bëgg-bëgg yi moo ëpp doole fi mu nekk ni nit ku nekk bëgg ngaa am te liggéey amul liggéey bi na mu waroon a demee demeewu ko am na ñoo xam ne jéemuñu yar sax seen njaboot xamuñu lu seen njaboot di dox am na ñoo xam ne tamit ñu yar mais am na ci ñoo xam ne yow bu sa doom toxee jéemoo ko xam ndax borom kër bu ne wala jigéen bu ne war nga xool sa doom ndax mu ngi tox wala toxul war nga xawal sa doom ndax mu ngi def wala deful mais jigéen ji nga xamante ne yaa ngi ànd ak sa jëkkër ci xadar xadar xeex xeex xeex loo jur xadar lay doon loo jur rek xadar lay doon parce que doom yaa ngi koy defar ci ëmb ba wala bala nga koo ëmb dañ ne sax bala ñu laay may jëkkër nga yar sa bopp ba boo amee doom mu yaru léegi nag jikko yooyu yëpp dafa diñ kenn yaratul booy takk doo seet ku yaru boo juree doom mu nekk ku agressif bi ci des tamit yàmbaa ji dafee bëri dorog bi. bu njëkk dañ doon tudd si kër yi sunu doon yaree. moy keuru famille yu mag lañ bokkon nga xamne sa papa ak sa yaay ak sa mag ak rakk yeeg ñëpp ci nekk ñu doon dundu en harmonie daan waxtaan ci biir njabot mais legui kenn ku ci nekk so amé sa soxna rek mu am ben dom rek yow yaa bëgg nga euh, beru sa bop bo xolé ba ci biir kër yi sax legui da ngay gis ñi bokk nday ak tak taklo dem kenn ku nekk sa lu bop benen bi des moy ñak yar bokku na ci cause

ci jikko yu yàqu yooyu sax lañuy ñuy desandi ba tey moom mi nga xamante ne ab psychologue la di Salif jàpp ne moo waxal yenn ci askan wi di defante ay ñaawteef la sax ay faat di ca am dañu koy teewlu ci bile la ray bu dul jeex fii ci réewum Sénégal mel ni tulleeg màlle ni ki nag ay bés bi ñu génn am ci nag ay cas bu ca xew foofe ca Pikine Rue 10 ak soxna si ñu faat ak ci jàmm gën ki nga xamante ne nag ab psychologue la xelam màcc jëm ci wàll rek saytu yenn ci jëfini doomu aadama mu nga cay jéem a andi ay tontu jëmale ko ci ñaawte fi nga xamante ne lëmbe na lii di réew mi. li nga xam ne moo doon téye nit li ma doon wax mooy ngor mooy jom mooy cas bu demee loolu. jënd si nit rek pour mu def lenn li day day yomb parce que am na du ma du ma sëriñ mais maa ngi dégg borom xam yu ne ko yonent bi naan nit ki boo demee ba amatoo kersa lu la neex defal effectivement parce que nit ki dafa am lu koy téye loolu dina téye nag bu demee ba génn si yow yow rabu àll yi sax ñoo la tane parce que yow dañuy supposé ne yow comme yow yàlla dala may xel yaa war a nekk seen seen kaw mais loolu lépp bu fi génnee beneen bi tegu si mooy pression sociale nga am soxna wala nga am jëkër wala nga am papa ak yaay ñu tek la pression bo xamne bi di la def lo lo xamne ne la yow wor na leene mëno ko te yow tamit nga bëgg won nit yi ne man dama am wala man dama dama am niveau de vie bo xamne bi lo xamne li lii niroow la réellement li nga am loolu lepp bu dajolo rek pour nga def lo xamne waro def day day yom loolu mën na dem effectivement ba nit ki dem ba ba ba ndax lan ndax am mona am mbir moo xamante ne saa su ne mu ngay gën di ëpp loxo te kenn ku ci nekk ci askan wi tiit ak njaqare dong nga toogee benn xel daal dalatul ci gàttal. ay rey moom dafa mës am ci société bi c'est vrai que bu njëkk bu daawul woon fës parce que médias yi bari wu ñu woon ni ñu baree ni ñu baree léegi moo tax léegi bu dara xewee ñëpp koy ñëpp koy yëgandoo ñëpp koy gisandoo donc euh, li xew nii dañ koy d'abord dañ koy dañ koy naxarloo di jaale ñi nga xam ne arrivé nañ parce loo xam ne la kenn mënu ko expliquer kenn mënu koo comprendre wax dëgg yàlla kenn mënu koo comprendre te foo ko nattu rek weesu na te rien dara mënul expliquer li xew fan yi paas fan yi paase surtout xale bu jigéen boobu nga xam ne nee nañ dafa ëmboon après ñu fekk ko fi muy liggéey rey ko. te phénomène yooyu tamit Sénégal lu si xaw a doy waar mooy bu lu xew dañu siy wax ñaar fan fan ñu pare si. na benn psychologue Serigne moom Mbaye loolu la ñu wax il faut ñu def lu ñuy wax ndëpp collectif. ñu toog ñëpp ñu xool ñu jaxasoo fii ci réewum senegal la ko waxal bokk na ci faat yeeg ñaawtee fi rawatina sax ñenn ñi dem ba ci biir kër yi kenn nelawatul ba yandoor ci loolee nag ñu sàkku ñi nga xamante ne mooy nguur gi ñu dal di génn àddu ci ndax boobaak léegi ñu ngi def tekk tekkaaral balaa bile mbir di yegg ci foo xamante ne nag dootuñu ko mën a faj. ci boobule faat la ñuy des ginnaaw ba mu amee mouvement bu yanamaax daal nay jàkkaarloo ak way taskatu xibaar yi naka mu joxoñ baaraamu tuuma bokk na ci nguuruk Sénégal booba léegi àdduwut waaye itam di sàkku ci ñoom ñu dooleel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy takk deru réew mi ngir rek ñu daal di gën a amal seen liggéey ba teg loxo képp kuy def bile ñaawteef daañu ci dikkaat ca na mu gën a yaatoo nañu ko ci ndorteelu xibaar yi dem seeti nga xamante ne ñooy jaay li di ventilateur wala sax ñi koy defar ci jamonoy tàngaay bi rawatina fii ci diwaanu Saloum ñenn ca ñoom ñu nga cee gis seen bopp bu baax a baax ay da kamara moo ñu ko xamal fukki waxtu ak benn daal di jot ci marché central bu kaw lakk ci mbedd bi ñuy woobi nag sóobante ñu fekk fa Amadou Ba ñu fekk nag mu téye ab tournevis ci loxoom ay hélices suventilater ak itam yenn ci ay pièces moom réparateur bi nga xame ni nag ay atam mu ngi toll ci ay fanweer mu ngay xamle ni ci jamono tàngoor bi seenub liggéey day dox bu baax a baax. waaw non van loo moom instant bi moom ma non maa ngi gis bopp daal. Kaolack moom lakk moom chaque instant day pan waaw van loo dafa am bëri façon xam ne électronique la. moom gars yi lu ñu liggéey ci bu soobee yàlla bu paanee bu ñëwee ñu mën nañu koo liggéey daal. bu fekkee dafa euh, doo ci mën a génne comme genre bi ma tim nii bi mécanique la bi contact la moteur yooyu la am na taal ak commande exemple genre yi genre commande yi ñoo leen di taal yow bu fekkee dafa électronique bu paane doo ko mën a defar ko pièce nekk ci télé ak rajo yi ñoo ciy nekk man boo yoo xam ne jànguñu métier ñëw rek dugg ci métier bi rek commencé taxalee nii rek la plupart yàq bagage jàmbur di amee problème ci weneen fànn wa ñii di jaaykati ventilateur yi nag ñoom ñi lay tàmm seenu café ma nga tàmbalee saf suukar bu ñu sukkandikoo ci El Hadji mbay mu ngay xam xamle ni naam sax xaalis amul ak jafe jamono bi teg ci tàmm ventilateur yi seer nañu lool waaye teewul ñi di jëndkat yi dañuy ñëw. tàngoor moom du bokk ak bu dul tàngoor. nga xam ne ventilo moom tàngoor ko tax a jóg. jamonoy sedd moom njaay ventilo du dox. waaw bu dee jamonoy tàngoor moom wax dëgg yàlla moom danañ gis suñu bopp li ci am nag moom mooy bagage bi yow yokk na léegi nag ndax euh, jamono bi ni muy ni muy doxee waaw ah, bantlo bu doon jar fi ñu ni ni 7000 léegi mi ngi ci 8000 ñu ordinaire yi ñi nga xam ne bi ñoo doon jar 14 euh, bi ñu ngi ci 15000 ñi nga xam ne ñoo doon jar 12000 euh, ñu ngi ci 14000 yokkute am na bu dee hivernage yi nga xam ne ñooy seere doon jar ay 22000 am na yoo xam ne ñu ngi ci 24000 waaw Ndiamé de tubaarkàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci fàttali bu njëkk ba suñu maam yi dañu daan faral di jëfandikoo ay wantaay ngir nag mën a xeex tàngoor bi waaye jamono ji ak xarala yu yees yi ventilateur ak climatiseur ak yeneeni xeet yu ñu mel dafa ñëw rekk daal di bokk ci dundu doomu aadama bi niki tey ci altine ji yam ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai atum 2022 jëwriñ bu ñu dénk wàllum wér gi yaxam dellu si waat ci résultat yi tukkee ca examen yi ñu def ñeel mbas bu coronavirus ci juróom téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay yoo xamante ne nag def nañu ko ñaar daal dellu si ànd ak doomu jàngoro bi yooyu la ñaar bàyyeekoo ca la ñuy dippee ab transmission communautaire maanaam wàllante bu ñu xamuloo fu mu jugee juróom-benn ci ay patient ñoom ñoom euh, jëw wàllu jëwriñ bi yox wàll wi ñu ngi xam le ni euh, daldi nañu leen saytu ba jamono ji amatuñu benn ab jàngoro ni ki démb amuñu benn kaabu bu wala sax koo xamante ne daal dinay euh, génn àdduna bakk ba daal di jip ñeel xabaaru biti réew yi ñu ciy dalal Cheikh Tidiane Samb Burkina Faso parc natul li nga xamante ni sax ñoom daal nañ rek mujj nekk cible yi nga xamante ni moom la rek fa la groupe terroriste yi daal di rek di defee seen liggéey lu toll ci juróom-ñeenti garde forestier ci biir ONG African Pax daal nañ leen rek rey ci weer février bi ñu génn ci bile attaque bi nga xamante ni sax amoon na ci boobule parc ñu naan W ba tax na loolee yaatu lool jëm laal Bénin waaye itam Nigéria ak itam Burkina Faso yooyu la gox sax ñàkk ay ñu fay fréquenté lool waaye itam ñàkk itam ñu leen di saytu yooyu la parc naturel ñoom daal nañ rek nekk jamono ji fi nga xamante ni groupe terroriste yi fa lañ rek di defee seen i jéey ci loolee ñi mën ci dolleeku yenn braconnage yi nga xamante ni dañ ko fay nemmeeku suñu sukkandikoo ci reportage bi nga xamante ni Kalidou moom daal koy def fële ci réserve Nazinga ci fële ci Burkina Faso ba tax na garde forestier ñoom ñu ngi rek daal di def seen kéntalaay kattan ngir rek daal di aar yooyu la ñaawteef ñu àddu jëmle ca France ab premier conseil des ministre moom daal nay rek mujj la ji gannaaw mbir yi nga xamante ni soxaloon na ki nga xamante ni mooy Damien Abad ñu waroon ko amal sax ci altine jile Emmanuel Macron ak ki nga xamante ni sax moo di premier ministre am di Elisabeth Borne ñoom daal nañ rek daal di moytandiku loolee ba tax na ab projet de loi bu njëkk daal nañ ko fay teg ngir daal di rek xool ana naka la ñuy def laata rek élection yi nga xamante ni moo soxal pencum ndaw réew ma daal di am. ñaar du fële jëmee ci États-Unis Joe Biden moom daal nañ rek xaatim partenariat bu jëm ci wàllum koom-koom. ci Asie Pacifique ak ci lu toll ci fukki ak ñetti réew. président américaine bii di Joe Biden moom daal nay xamle sax ci altine jili fële ca Tokyo ab lancement bi nga xamante ni dana ko amal lekk mu dox ci boobule partenariat nga xamante ni sax dina rekk daal di soqali yooyu la dëkk waaye itam ñu defee ko rek ci indo pacifique bi moom loolee sax daal di mujjul antu suñu sukkandikoo ci dëkk bi nga xamante ni moo di Chine. bu ñu ca noppee tàggat yaram la ñu ci euh, toftal dikk ak résultat bu classement bu Ligue 1 ak 2 bu Sénégal ni la tëddee ànd ci ak Sidi Mohamed Sarr xibaaru tàggat ak résultat Ligue 1 professionnel ñaar fukk ak ñetteelu bëccëg bi à Sacré Cœur dafa dal di daan Mbour Petite Côte benn bal ci dara Guédiawaye FC dafa dal di tëmb ak Jaraaf kenn ku ci nekk benn la am ci kan yu moroomam Jàmbaar FC AS Pikine moom moo ko dal di daan benn bal ci dara Teungueth FC daan Génération Foot benn bal ci dara Senex d'Excellence AS Douane moom moo ko dal di daan benn bal ci dara Casa Sport US Gorée dañoo dal di tëmboo kenn ku ci nekk rek amul dara Linguère ñaari bal ci dara. classement ñaar fukk ak ñetteelu bëccëg yi championnat Ligue 1 Casa Sport nekk ca booba am ñeent fukki poñ ak ñett Jaraaf ca ñaareelu place ba am fanweeri poñ ak juróom ñett Génération Foot ñetteelu place ba fanweeri ak juróom-ñaar ñeenteelu ba Guédiawaye FC ak juróom juróomeelu place ba AS Douane ak poñ ak juróom-ñaar fukk ak ba US Gorée ak juróom benn Ñambour ca fukk ak ñaareelu place ba ñaar fukki poñ ak juróom bourse d'excellence ñaar fukki poñ ak ñeent Mbour Petite Côte moo féete ca fukk ak ñeenteelu place ba am fukk ak juróom-ñaari poñ résultat Ligue 2 professionnel ci ñaar ak ñetteelu bëccëg bi Thiès dafa dal di daan jamono Fatick ñetti bal ci dara AS Ouakam moom daan jamono Fatick benn bal ci dara Kër Madior ak Demba Diop danoo dal di tëmboo kenn ku ci nekk benn laam ci camp yu moroomam Sonacos ak IGST Port ñoom it danoo dal di tëmboo kenn ku ci nekk am ñaar ci camp yu moroomam Duc dal di sëngeem ci digganteem ak Walidane ñaari bal ci benn Stade de Mbour daan Renaissance benn bal ci dara also Fatick daan NGB ñaari tali ñaari bal ci benn classement wu ñaar fukk ak ñetteelu bëccëg ci Ligue 2 bi Sonacos nekk ca boobaam ñaar fukki poñ ñaareelu place ba Wally daan am fanweeri poñ ak juróom ñeent ñetteelu place ba Stade de Mbour am fanweeri poñ ak juróom ñett ñeenteelu place ba US Ouakam fanweeri poñ ak ñeent juróomeelu place ba Demba Diop fanweeri poñ ak ñett fukkeelu place ba Thiès FC ñaar fukki poñ ak juróom benn fukk ak benneelu place ba Jamono Fatick ñaar fukki poñ ak juróom fukk ak ñaareelu place ba Amitié FC ñaar fukki poñ ak juróom fukk ak ñetteelu NGB ñaari tali ñaar fukki poñ ak benn renaissance fukki poñ ak juróom-ñett. jaajëfal ko bu baax a baax moom Ahmed Sarr ñi ñu doon seetaan nit naka noonu ndax ci bile élément la ñuy ndax keppe yi lay jotaayu xibaar ñaanal leen guddik jàmm te di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf. ont vu la naissance d'un géant, un constructeur en provenance de la Chine, qui depuis des générations arpente les chantiers du monde entier, transportant les hommes et le matériel. Robuste avec ses lignes épurées, équipé de technologies de pointe, endurant, fiable, maniable, à Asset de Sinotrek et doté d'un habitacle